te di ñaan yàlla sunu boroom li nuyoo bi làmboo yàlla nañu ko boole làmbal mooy jàmm ak yërmande ak barke seen mbokk imaam Mouhamadul Bachir Darame moo fas kee na àndaat ak yéen ci seen émission bii di Azikra ci seen sit bu am solo bii di seen info tabaarakallahu ñi ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñoom lañ bokk ak liggéey bi di leen ñaanal yàlla na leen te taxaw leen ci biir ak ci biti ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru mag wi di weeru kon weer la woo xam ne comme niñ koy faral di waxee weeru ngëneel la weeru yërmande la weeru xéwal la moo tax yonent bi alayhi salaatu waxoon xadis ba donte boroom xam-xam yi am nañu ci wax waaye comme que ci majaalul fadilatul ramadaan lañ nekk mën nañ koo wax mooy ne awaluhu raxma wa awsatuhu maxfira wa axiruhu ajqu min mooy weer la woo xam ne njël benam yërmande la waaye digg ba muy fukki fan yi ci topp njëgal la yeneen fan yu ci des yàlla mu ne dama lay goreel ci safara yàlla nañ bokk ci ñu yàlla di goreel insha allahu taala kon nag weer woowu nag mooy weeru alquran comme niñ ko bokk xamee ndax weer la woo xam ne ci alquranul karim bii di sunu téere nekk téere bi nga xam ne moom la yàlla gëna la ci mboolem téere yu musa wàccee ci weer wi la ko yàlla wàccee kon waxoon naa la rek démb ne la weer wi mooy anniversaire alquran ba tax na kon bu jotee képp koy safoo alquran rek war na bég ci weer wi waaye war na gën a fonkaat alquranul karim ndax alquranul karim mooy téere bi nga xam ne huwa al munazzalu ala sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam mooy téere bi nga xam ne yàlla da ko wàccee ci sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam li yubayyinuhu linnaas ngir mu leeralal ko nit ñi ci lépp loo xam ne nekk na ci ci ay ahkaam ci ay àtteeg yi ci aju kon moo tax ñi gën a war a fonkaat alquran yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mën a jàngaleem weeru koor yi su jotaan comme ni ko jàngee ci xadis yi lépp lu daan def da koy yokk ful ko waaye rawatina alquranul karim ba daan nañ wax sax ne sab guddi moom ak sayyiduna jibril alayhi salaam daan nañ toog benn jotaay di ci fàttaliku alquran ci lépp loo xam ne nekk na ci ci ay mbóot ci ay njëriñ ci ay àtte kon loolu lu muy tekki rek mooy fooraayu weer wi waaye fooraayu alquranul karim ba tax na kon mbokki jullit yi nañ fonkal alquran bu baax a baax a baax waaye nag def ci suñu yitte yépp ndax moom mooy lu ñuy jëriñ incha allahu taala tey sunu tomb waxtaan kon dañ koy jagleel alquranul karim ñu jukki woon ci nag tey tomb bu am am solo mooy ma hiya al gaayatu min indaalil lan mooy objectif bi tax yàlla sunu borom wàccee alquran waaye wàcce ko ci weer wi weer wi mooy weeru ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi wax na ci hadis ne rajab mooy weeru yàlla shahbaan sama weer la waaye ramadaan nag shahru ummati weeru sama xeet la weeru xeetam woobu nag moom la yàlla tànn wàcce ci téereem bi nga xam ne moo gën ci mboolem téere yi moo sa wàcce su ko defee nag wàccee googu sunu borom wàccee ko dafa am lu tax mu wàcce ko loolu ci lañ bëgg ànd ak yéen bi isnillahi taala mbokk yi yàlla bi mbindee jaamam yi ku ci nekk sa bakkan am na ci lum lay jéem a xëcc su ko defee loolu nag mën naa bañ a nekk li gën ci yow soo ko toppee du la jëriñ dara loolu moom lañu yàlla di wax ci ay aayaat ci alquranul karim ne am na ci nit ñi ñoo xam ne seen yitte lenn rekk la lekk ak naan rek sol simmi moom la wax ci laaya ji ne walladina kafaru yatamataoon wa yakuluuna kama takulul anhaamu wa naaru mathwan lahum mu ne am na ñoo xam ne dañoo weddi yàlla waaye ñooñu seen yitte leen rek la mooy fuñ toll ñu ngi soxla luñ lekk luñ naan di bànneexu mel ni ay bahima kon doomu aadama mission dëgg nekkul lekk walla naan loolu lu gën a tuuti ci yittey doomu aadama la bokk ci sax ba suufiyank yi dañuy faral di wax ci kaw xam ne dafa toll ci état boobu ñu naan kooku xelam dañ koy jàppee ni xelu baahima bi maanaam les animaux moo ñoom ñoo yam waaw mooy ki nga xam ne aqlu zulmaan yi la yore yitteem daal ci bakkanam rek la ko def afara ayta man ittabaahu illaa hawa nga xam ne moom bakkanam sax la far jël def ko muy yàllaam topp ko di ko jaamu waaye am na ci ñoo xam ne it seen yitte rek la taaru àdduna bii nga xam ne dafay jeex waaw moo tax alquran ne zuyyina linnaasi hubbu shahawaati min annisaai wal banina topp ko ba jeex mu ne am na si nit ñi ñoo xam ne seen yitte leen rek la taaru àddina waaw njëkkalante kër gi moo gën a rafet sama kër nii laa bëgg mu mel oto bi nii laa bëgg mu mel yooyu am na lu ko ëpp solo mooy nga fexe ba defar sa biir loolu mooy li ëpp solo waaye topp yooyu nga xam ne deuxième la ah dëgg-dëgg yàlla gënul ci koo xam ne jullit la jullit yitteem war naa kawe foofu léegi alxuraan nag bi mu waxee loolu ba pare nañu nag kaay leen ma xamal leen lan mooy objectif bi nga xam ne doomu aadama war na ko jël def ko yitteem mu ëpp yooyu yëpp alxuraan kon ban objectif la indi bàyyiloo ñu yële gannaaw ñu bàyyiloo yële kon mooy lan mooy hidaayatu naasi ila alxaq an tariqihi wa iraajihim mimma fiihi min adulmaat ila nuur mooy dafa ñëw pour orienter nit ñi teg leen ci yoonu dëgg ak jénne leen ci lépp loo xam ne lëndëm la dugal leen ci leer waaye it pour lan ngir mën a laabal xolu nit ñi bañ mooy bañ bañ bañ bañ bañ di jaamu loo xam ne lu uteeg lu yàlla lu uteeg yàlla la waaye it bokk na ci li tax alxuraan wàcc ngir mën a orienté nit ñi jox leen pas-pas bu wér ak man leen a teg leen ci xam-xam yoo xamante ni njëriñ kese la moo xam xam-xamu àdduna wala xam-xamu àllaaxira waaye it ngir lan man leen a orienté bañ làmboo jikko yoo xamante ni yu yàlla gërëb la mooy wa ila al axlaaq alfaadila allati taxfiduhum wa taxfidu almujtamaa min almadaliqi alhawa wa shahwa ngir ñi làmboo jikko yoo xam ne gannaaw bañ jàngee alquran xam ko maîtriser ko di ko jëfee loolu moo leen di permettre ñi mën a làmboo jikko yoo xamante ni dana tax ñi mën a wëttu seen bopp ku ci nekk waaye wëttu société bi nga xam ne ci nga nekk wëttu environnement bi nga xamante ni moo la wër kon yooyu objectif yooyu moo tax yàlla wàccee alquran yooyu nag jullit bu nekk war naa def yitteem pour mu nekk ci moom ndax alquran boobu yii ma wax la mooy tax nga mën a dem ba am lu ñuy tuddee alqurbu ilallah mooy jege yàlla jege goo xam ne nag xurbu nisba la waaye laysa bi xurbi makaan moom la suñu maam ji baax ji wax xaadim rasul radiallahu anhu ne fa man araada xurbu min mawlaahu fal yaqra'il quraan la yansaahu képp koo xam ne danga bëgg a jege sa borom fexeel di bari looy jàng alquran te bu ko fàtte mukk mu teg ca hit nag ne képp koo xam ne bëgg nga ngër mànde sa borom fexeel di saxoo di setantal settantal alquran qultu fa man yurid rida rahmaani fal yuthbitan tadabbur al quraan képp koo xam ne danga bëgg am ngërmande yàlla fexeel di setantal al quraan te loolu yàlla moo ñu ko diggal ci ay aayaat afalaa yatadabbaruuna al quraan walaw kaana min indi xayrillaahi la wajadu fihi ixtilaafan kathira nga xam ne jullit bi lim gën a war a soxla ci yàlla mooy ngërmànde parce que wa ridwaanum minallaahi akbar waaw ngërmande yàlla moo gën a kawe moo ëpp lépp loo xam ne jàmbi mu ngi koy sàkku kon jàmbi loolu rek la war a gën a def yitteem mooy am ngërmande yàlla ngërmande yàlla googu nag boo ko bëggee alquran moo la koy may ndax alquran boobu moo lay paramètre wan la yoon wi ngay jaar ba am ngërmande yàlla comme ni nga xamante ni ashaabu rasul alayhim salaatu wasalaam yàlla defaloon na leen loolu kon loolu moo tax ñuy war a jox yitte alquranul karim ngir man caa jëriñu ngir man cee jaar ba jubóog sunu borom ban yoon nag lañu war a jaar mbokk yi ba am loolu ñu bëgg mooy yoon bu ci gën a gaaw mooy faw ñu nangoo jàng nañ def suñu yitte ci jàng alquran jàng luxatal arab yi ndax alquran mënoo koo xam te jàngoo luxatal arab yi ndax yàlla ci la ko wàccee waaw ndax benn ustaas dafay wax ne al luxatul arab yi jusun min xaqiqatil islaam nee na langue arab kooku la ci lislaam ndax lu tax moom mooy tarjumaanul quran waaw maanaam moom mooy ki lay interprète pour nga mën a dégg li yàlla di wax ak yow ci alquranul karim kon loolu moo tax mu ne luxatul quran luxatul arabiya juz'un min al islam kon faw ñu nangoo jàng luxatul arabiya loolu mooy yoon bi gën a gaaw pour ñi xam li alquran di tekki mooy nañ jàng luxatul arabiya mën a dégg kalaamul quran mën a dégg al ahkaam yi nga xamante ni ñu ngi ci biir alquran mooy atte yi nga xam ne yàlla atte na ko ci kaw jullit yi kon buñ bëggee jëriñu ci alquran nañ delsiwaat ci jàng alquran ndax kat alquran li ci nekk du pour julli kese du pour julli kese laaj nañu jëfe li nga xamante ni yàlla digal nañu ko ci te loolu nag mënoo ko xam loolu dangaa jàng alquran mooy tax nga mën a xam li yàlla wax ba jëfee ko ndax du mu du mu jëlul qiraa kese sëñ Tuubaa wax na ko ci masaalikul jinaan fa innahu subhanahu ma anzala illa li taamala bihi fastaamala waaw yàlla sunu borom wàccewul alquran lu mooy pour ñu jëfee ko kon dañ koy jëfe dañ ko war a jëfee waaye jëfe googu nag dafay laaj nga mën a nga jàng mën a liir mbokk yi ñu ngi ci weeru koor weeru promotion la waaye fursa la lu ñuy wax occasion kon yow sama mbokk mi nga xam ne mënoo liir profitool jéem a rek la sa temps même chaque jour bu dee da ngay jéem a fexe def sa yitte ci man li nga xam ne mooy benn lettre xam nga weer wi yépp boo ko doon xool dafay tolloog lettres yi nga xamante ni mooy lettre alphabet yi parce que 28 la même chaque jour booy jël benn lettre jéem a ràññee nii lañ koy jàngee nii lañ koy jàngee buñ ko maasee lii nii lañ koy jàngee buñ ko maasee lii ba nga xàmmee ko nga def ci sa yitte boobu moom sayee jeex na beneen jour nga jëraat boobu balaa vingt-huit jours yi di jeex dina fekk nga xàmmee yépp yow mi nga xam ne yàlla dimbale na na mokkal nga ko al mokkal nga ko weeru ko na nga ci occasionné wu nga jéem a xam jéem a dégg li nga xam ne yàlla mu ngi koy wax ak yow ndax ay message la yoo xam ne na nga ko war a dégg te yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom def na devoir am mooy jottale yee nit ñi wax leen li yàlla wax ci alquran kon yow it nang nga def sa yitte yow mi nga xam ne mokkal nga ko jéemal a dégg li yàlla di wax ak yow yow mi nga xam ne yaa ngi liifantu góorgóorlul ci weer wi ndax liifantu bi gën a dëgër soo koy defee noonu rek utal ko programme inchaa allahu taala bu ñu yàlla mayee fan ba balaa déwén ci heure bii dina fekk yow sa liir dëgër bu baax a baax a baax ngay man di mokkal ay ay ay ay ay saar su ko defee it ngay gën di yéeg di yokk sa yitte noonu ngay demee tabaarakallahu ba dégg li nga xamante ni mooy alquranul karim kon lu ma bëgg a wax rek mbokk yi ci tënk mooy ne nañ gën a yokk yitte yi ci alquranul karim ndax dañoo nekk ci weeram bu nekkee ci weeram nag liñ koy sagalee mooy ñu fexe góor góorgóorlu def si yitte ba mën koo xam ndax ñi man koo pratiquer mu yomb kon mbokk yi seen mbokk imaam Mouhamadul Bachir Dramé moo nekkoon ci kàddu gi ñi ñaan yàlla lépp luñ ci wax yal nekk lu ñuy jëriñ waaye lépp loo xamante ni rëcc nañu ci nañ xam ne matal gi doomu aadama la in uridu ila al islam mastata'tu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi